mu yëkkati ay kàddu ba tuur xéwal di ma wan li nga xamante moom mooy dernier message audio bi nga xamante ni euh, moom Aziz def na ko ci moom Soxna si ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar di la masawaat li nga xamante ni yow ak Sénégal yéen a ko yéen a ko bokk. waaw ah, fay naa la sëñ bi fay naa la a baax fay naa la. moom xam naa mën nga wax ndax keroog moom je crois que xawoon naa métti lool lool. Hmm, moo tax keroog moom loolu depuis màggal di jàll ba léegi yokku daak euh, yoon mi ngi def liggéeyam ñu jàpp juróom-ñaari nit ñi nga xamante ni dañ jàpp ñoom ñooy def def ci ñaaw ji euh, sa réaction ak ci li yoon def léegi toll ni kat ñoom ñëpp da leen def fi nga mooy suuf mën naa ko dépôt looloo ci am comme ah, sant yàlla bu baax rek sant yàlla loolu léegi lañ koy doog a dégg ma ñoo ngi mandat dépôt hmm. ah daal mu ngi def liggéeyam. Mm-hmm. yaa noonu la nga def liggéeyam. Mm-hmm. xaaru naa ko xaaruma ko xaar naa ko mais yaakaaruma woon comme ñu ci tudd nii ñëpp ñëpp ñoo ngi mm-hmm. naa ne ñeneen lay nekkal sax mais pas ñi xam ne presque ku jigéen ki moom moo ko as dañ dañ naan ñoo bokk ndey ak bàyyi. bu déggee ni moom Nabou du ñàkk mu takk ci mbir mi en tant jigéen yow tamit sa jàngat ci loolu métti na loolu. loolu metti far poosu la metti na ma bett na ma waaye ba tey man ay da gëmaguma tànka nabu da cee tàq ba léegi gëmagoo oh, neexut a gëm parce que ndabu sama mag la moo tax neexut gëm tànk nabu ibbiwul gémminam wax ma wax parce que bu ñu gisantee ko roog euh, dëkk waxuma woon loolu dafa na ba tey jii moom du moom bu mu fi ñëwee ko moom lan la nga la wax bu mu fi ñëwee ko roog ci vendredi bi bu mu fi ñëwee waaw gisante nañ jour boobu même gisante nañ tamit dikk mais bu mu fi ñëwee keroog je vendre jour bu ñu robee Aziz ba si lendemain bi bu mu fi ñëwee dafa ne deful. waaw. moom moo ne deful waaye fépp fu ñu Aziz féete woon dinañu fa féete kàddu yooyu la wax waaye ñun soxlawuñu fu ñu Aziz féete woon. gëm nga gëm nga wax yooyu. ah sëñ bi mënuma ni nabu naka nabu rakk Aziz la. si nabu sama mag la sama xarit la. sama mag la sama xarit sa xarit dina def jëf jëf mel ni tamit soxna si. neexut a gëm de parce que relation bu ñu am moo tax la parce que Nabou ak Aziz bu ñu xamante ak léegi ëpp na 18 ans ëpp na 18 ans pour pour loolu gëm ko man ma fekk ma am lu ma. da ngaa judd fekk Aziz ak Nabou di ànd. bu may juddu fekk naa leen ñuy non non sama kanam la ñu àndee bu maa ngi nekk xale ba nu may màggee ma fekk leen ñuy ànd mu rafet lool nag mosuma dégg lu ñaaw. musuma dégg lu ñaaw seen diggante ñoom ñaar Aziz weeru koor bu ndogoo fi ba pare kër Nabou Leye reeree du benn du ñaar Nabou Leye moo koy woo téléphone kaay reer Aziz di ñuy kaf di ree Aziz ak Nabou ay seex lañu kon tey ji kooku bu nekkee sa seex ba pare nekk sama mag maag Nabou ñuy déggante ma xam diggante moo ko Aziz tey ji ñu ne kooku da cee takke wala da cee laale wala tey ji moom moo tëgg yi dafay naqaree gëm tànk bu ibbiwul géem na ma toog mu toog mu ne ay dama maa def pour ma gëm ko loolu daf may def loo mënu ma ko gëm ñëw nañ fi di leen masawu di leen jaxale. jeudi safa la vendredi ñu ne fi vendredi ci ngoon ànd feeg yaayam ak magam bu góor parce que ñoo ngi rob jeudi vendredi la fi ñëw vendredi ay ba ah? jour waaw ah, kay la fi ñëw jour màggal ay 17 heures 18 ñëw boo fekk jóge naa almeer tuuti ci la ñëw si la fi ñëw. yow xool nga ko si kanam si bët war ngaa xam ni am na loo xamante ne su ko yaa quelque chose qui cloche wala. maag moom waxtaan nañu ba ba muy ñibbi sax maag moom ñoo mujjee wax longu na ma dama carrément affaire gi feeñ na moom nabu moom wax li dama carrément nabu lay ak waxtu bi nee na ma carrément affaire gi feeñ na waaye lépp dinaa leen su ma na ma loolu samedi tamit déggante nañu ma téléphone bu ñu déggantee dafa ma dafa ma nuyu jaamasante waaye boobu maa ngi doon jooy après mu coupé bu ma déggee tamit nañ am na ñu jàpp. moom man maa ko woo téléphone bu buy ma déggee am na ñu ñuy jàpp bu ma ko woowee ma ne ko naa bu dégg naa am na ñu ñuy jàpp mu ma ay des na sax waaw des na sax parce que man takkeew ma laaleew ma rek yuuxu jooy ku kuppeegul téléphone bi tege yaay ji wuyu après ci laa coupé. Mhm. Mhm. waaw man loolu dégg rek laa ci am. dégg rek laa ci am ci réseaux sociaux yi dégg rek laa ci am parce que man wóoruma dégg rek laa ci am. génne àdduna vidéo yi ñu gis Nabou mu yuuxu ni dee na dee na comme ça kon dee na loolu tamit dafa xaw a xel daal dafa xaw a ñaaw xel. en daal moom leen da laa lay wax leen da lay wax en tout moom am na jour bu mu wax nga moom jour euh, jeudi fa la yendu moom Nabou dig la yendu bàyyi nañ ko ci guddi gi bu ma woowee. wax na ma benn kàddu parce que moom moo ne si gémminam par téléphone man ay dem di ñibbi sama kër maa dawal am na benn xaytam bu góor bu ne ko nabu bul dawal parce que lii woo na ko man maay dawal moom nabu ci boppam ne ma carrément man ay dama dëggal man gaynde gaynde laa ba xaritam bi ku si tudd Maguette Seck naan ko moom mooy wax man fekkeew ma moom nabu ne Maguette Seck moo ne ko nabu la tey ji laay doog a xam sa gaynde kon dëgër na moom nabu nabu yàlla mooy na ko xool gu mayul kenn <laughs> sa xarit sa papa sa seex dee nga gis loolu lépp yow tiitoo rafoo bu ba tey yaa ngi ànd ak sa lii ah <laughs> na bu yàlla may dëgër na de xolom moom xolom xolom moom <laughs> ah macha allah. yow mënoo gëm na bu moom moo def jëf ji quoi. non du bu toogul wax ma wax mu ne carrément moom moo fekkee wala moom moo li gëm sëñ bi. <laughs> Mhm. jigéen ba léegi moom mu ngi jàpp Nabou ba léegi doomam la ndeysaan. ah Nabou Nabou na Nabou sama mag la sama yaay moo ko jur Nabou xaleem yëpp ñun bu ma bu may bu may nekk xale fi lañ ko xamee ba muy màggee mook mu rafet loolu nag Aziz dafa bëgg Nabou Aziz ku bëgg Nabou la ku bëgg Nabou la te Nabou tamit ku bëgg Aziz la pour mu leer xaw ma nag jot a am mais Aziz ku bëgg Nabou la. Aziz ku bëgg Nabou la Aziz buy xool Nabou day lox ba da koo bëgg Aziz booy xool xaytam yëpp Nabou am na ay xarit nag am na si ku mel ne Ndeye yi ak yooyu noonu waaye ñoom ñëpp ñoom ñëpp ay xaritam lañu mais nabu xaritu Aziz la woo ay xarit lañu ay xarit lañu. ah yàlla rek a xamagum de parce que tamit dañ ne man gëmagum man gëmaguma neexut a gëm yii waaw waaw loolu neexut a gëm <laughs> loolu su ma koy xalaat damay dof. ci enquêteurs yi ñu ni euh, ba léegi Nabou nangul wax nangul génne wax li nekk di nekk si moom. waaw maa ngi koy dégg même man keroog ma fa nekkee maa ngi moom ñoo bokkoon benn saal bu ñu nekkoon mais waxul ba tey dafa ne ma moom ba tey deful. ba tey deful tey deful loolu la wax. sa vague parce que defuma tamit loolu tamit sa vague. waaye yoon dima ngi def liggéeyam bu baax nag moom bu defee bu deful. Hmm. ñu ngi ko sekkal ñoo ko ëpp xel foofu bu si takkee wala mu laal ci ñu ngi ko sekkal ñoom jàng nañ metti gi te duñ ay nit ñoom ñoo ko ñoo ko ëpp ay pexe fuf dina leer ndax ñee ñoo ngi liggéey. mbirum xaalis la affaire affaire xaalis la ma tax ñu jël bakkanam. Ah, man xaw ma ndax mbirum xaalis wala nekkul mbirum xaalis mais en tout cas maag Aziz bu ñu gisantee mercredi bu mu fi yendoo ba guddi benn baat lañ mujjee wax dafa dama carrément bokk naa natt ci na bu lay ma nag may jox teggi naa mais joxaguma sama xaalis. as li la ma mujjee wax bokk naa natt ci na bu lay tegg naa mais joxaguma xaalis lu tax paral boobu as wax ma ko waa man natt bi sax na wax na ma ko non non non wax ma natt bi parce que man na bu vocal na ma par téléphone vocal dama carrément damaa bokk damay sos natt natt bi or la benn gi saba la benn gi 1 million la ma jël vocal gi transféré ko sama jëkkër mais sama jëkkër ba tey tontuwul. après koroog as bu ma ko waxee sax waxaat naa ko na ko nabu de wax na ma nattam bi sax mais as dafa réer rek bàyyi mais lu tax Aziz Dabala mu jéemaa wax genre wax jooju man tegg naa mais nabu joxaguma sama xaalis xaw ma nag lu tax mu wax ma ko ban message benn message dama bàyyee leeragu sama bopp leeragu sama bopp. si si toutefois que police police dëggal li kii gën nabu lay moo def jëf ji wala mu bokk ci jëf ci ñi def jëf ji loolu moom xanaa kon mooy àdduna bu tukki après. ah bu bu boobaa. yii àdduna ndax as ñun rek moomatuñ ko as ba mu deewee la ñuy doog xam ne ne as àddunaa ko moom boobaa ñun ñun am nañ la ñu metti sax mais dafa am ñu ñu jooyle ñooñ ñoo nar am problème ñooñ ñoo nar am problème waaye ndax bu nekkee moo def def na lu ñaaw. est-ce que gëm nga léegi est-ce que léegi gëm xaritoo xaritoo. bàyyi ba lii feeñ ba pare ñi bu feeñee moom bu nekkee moo ci takkoo la moo ci laal yi xaritoo yëpp na nga bàyyi wuuf. sénégalais yi gis ngeen booba léegi sénégalais yëpp partout dans le ñu ngi masawu di leen naqar loolu li nga xamante ne moom moo fi xew sa yaay gis nga ba léegi mi ngi resté cent franc lay wax sénégalais ak askan bi ñi nga xamante ni leen di bàyyi baax baax baax sénégalais kenn amul seen fay ndax man am naa ci benn copine boo xamante ne moom moo ma tàggee daj bi sax boobu egsi naa presque sama buntu kër ku ci mel ne maam xaar moo ko Aziz bokk ñu ndey ak bàyyi sax mais bu mu ko yëgee dafa feebar ba koo xam te ne Binta ñoo jooy Aziz am na ñoo xamante ne seen cin dañ koo këpp togguñu añ ndax Aziz kon sant yàlla sant yàlla aji ku dem xamuñu ko woon bu mu demee lañ ko xam ku ko rey da koo dimbali ku ko rey da koo dimbali parce que loolu tax ma ko dimbali ko da koo faxasal ay bu nekk am na tuuti bàkkaar da ko ko faxasal ñun ñoo ñun ñoo gàddu jooy Aziz mais Aziz fu mu nekk mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñun ñoo koy jooy mooy bu ñu jàppee Mouhamed Lamine Diaw ñu ni waa gi doon bu góor mi ngoon loolu comme da nga koy dëgg loolu moom dégg rek laa ci am loolu daal dégg rek laa ci am ci biir booba léegi ñu ngi leen sonn na booba léegi mi ngi jooy mi ngi ciy wax démb mu ne justice soit faite ci li nga xamante ne moom ma waaw ndéggee kenn amul fayam ndéggee kenn amul fayam wax dëgg yàlla boobu ba tey Nabou Leye ndéggee moo ngi fi boobu ba tey moo ngi fi chaque jour ndéggee moo ngi fi mu ngi ñuy woo téléphone mu ngi ñuy nemmeeku mu ngi jël alalam bu takk du ko ci def. ba suba la sa huitième jour bi naruñu ko woon sax def waaye moom ci boppam moo ne carrément ag dafa am ay nit te am ñu bëri ñoo xam te nekk ñu woon fii Dakar da leen fekk Touba te ñu bëri dañoo bëgg a fekkee sarax jeudi vendredi vend suba daan jeudi ah nañ ko def kon am na ci taxawaay bu rafet wax dëgg yàlla boobu ba tey bàyyiwuñ chaque jour moo ngi fi moom Ndeye Guèye Boga Maguette Seck kenn amul seen fay ñoom tamit wax dëgg yàlla. Hmm. Ah, loolu moom yàlla loolu moom. mu ma cee wax ma ci waxee du baax. merci beaucoup soxna si en tout cas je crois a ngi seetaan